loolu la ñu waxoon toute cette semaine on a travaillé dur pour ça donc euh, amoon na lu mbégte vraiment. waaw franchement kay laay o xam ne Banatouche moom toogaay ak Banatouche moom neewul quoi bu ma neewoon si Banatouche yeeg suma tànkee ñu ngi daan xasee franchement mais nag vraiment kontaan naa trop parce que ils ont fait job waaw bu ñu duggee def nañ lu ñu war a def waaw amoon na lu leen franchement. waaw maa kontaan trop trop waaw. waaw parce que match mooy comme ni ma ko waxee dañuy bëgg a jouer proprement dañuy bëgg a génne ballon proprement donc ku ñu génnee proprement nag danga nga koy a jël si kaw ñu loolu lañ loolu lañ leen def da leen jël si kaw boo ko jëlee si kaw day jéem a day jéem a sànni bal bi ñoom miinu ñu loolu parce que miinu ñu loolu dañ leen poussé à la faute bon boo xoolee bii bi loolu la demee dañoo dañ leen jël si kaw défenseur bi bëgg a xottu attaquant bi waa ji récupéré ballon bi passe ñu dugal parce que c'était ça la consigne quoi jël leen si kaw. le pousser à ce que ñu ñu ñu bu dul seen boss ñoom dañuy dugg génne bal proprement donc c'était ça la clé du match affaire yi pour supporter yi la quoi. waaw ak Ziguinchor ñoom ñi ay ndaanaan bu nekkee ci kaw di yëngal ngeen nekk ci suuf lu ngeen di yëg lu bëri daf ñu lay motiver trop nag vraiment dañu lay motivation bu ñoo taxoon ngeen di fay. waaw waaw waaw ku bëgg a akara fa nga ñëwee kaani ah. merci beaucoup kontaan nañu. merci waay. waxoon naa ko nee leen euh, li ñu engagé coupe bi ni ñu ko paree mënuñu ko ñàkk parce que pare nañ ko liggéey nañu dem nañu ba Mauritanie participer à a championnats dem nañu fu nekk nekk les dans de bonnes conditions te yàlla fay nañu. di am entraîneur bi nga xam ne nawetaan rek la jógee ñu confirmé ni mën na jógee si nawetaan garanti nawetaan rek la def après mu ñëw on a eu confiance en lui le début était Des gens ont dit même, il faut le renvoyer, il faut le laisser. Maintenant, il Aujourd'hui, c'est la victoire. mooy tey li nga xam ne tey nangu naa ko gëm naa ko mooy jàmm am na Casamance parce que coupe bi dañ koy yóbbu di fekkee suñu jabar fekk suñu rakk fekk suñu mag fekk suñu baay ne leen léegi ñun ñëpp dina ñu amoon. muy mbégte bu rëy laa ci euh, di gërëm vraiment di gërëm euh, le président le président Seydou Sané di féliciter encadrement technique bi entraîneur bi di félicité supporters yi ak ñëpp ñoo xam ne jàpp nañu pour que réussite bi am euh, parce gis nañu élan solidarité boo xam ne am na si équipe mooy doomu waa Kolda région de Kolda région de Sédhiou mais aussi région Ziguinchor ñëpp jàpp nañ si Thiès yi ba solidarité moo tax mobilisation exceptionnelle bi am pour que nit ñi mën a voyager jógee Casamance bi fii dans de bonnes aussi mu ñëwee Thiès. mooy nekk dans d'excellentes conditions je pense solidarité ak euh, union boo xam ne moo am autour de moo ñu moo ñu war a donc di ko sant suñu borom di ñaan nekk euh, euh, yeneen te mu rafet bi mbégte boo xam ne tey am nañ ko mu continuer di wéy pour le développement de notre région mais aussi le développement du Sénégal parce que tey Sénégal moo gagné parce que c'était une belle fête di ci profité aussi di gërëm sama naataango maire le maire de Thiès Talla Sylla ni Ziguinchor ak Thiès comme des villes du maire dépassé na mbay yi dem yëpp ñëw teewe mbir mi naka noonu gouverneur bu Ziguinchor donc bi di ñu aussi bu ñu nee bu savee la gis ngeen loo xam ne am na fii dinañ ko wéyal di Sénégal Ziguinchor na fête bi dina aussi doon fête bu rëy foofu pour tertu leen Eh, buñ ci ñëwee aussi dinañu euh, waxtaan bu ñu biir mu am ay ndim ay ndàmpaay yoo xam ne dinañ ko en tout cas yeggee équipe bi pour que vraiment. ñoo mën a xam ni que c' vrai que Casa équipe Casamance yëpp la mais d' abord si biir commune bi ngeen soxla nekk donc je pense que ville bi war na si jàpp balaa ñeneen si jàpp te dèjà jàppoon nañ si balaa ñu ñëw waxoon naa leen bu ñu jógee bu ngeen gagné final bi dañu gisawaat bu ko ñu joxaat lu gën a rëy loo xam ne doo nañ ko doon mais xam nga loolu ko fii parce que xam nga dama bokk si benn kuréel bu tudd benn coalition présidentielle nga xam majorité te mu bokk ci la kon li la conférence de leader ñu tëral ko ay code de conduite yoo xam ne kenn warul euh, déclaré candidat bi te président coalition ak conférence de leader waxul ci dara damay xaar bu conférence bi prononcé wu pour mu mën a wax ci yéen yàgg ci ci ñoom. waaw di di di rafetlu ma ko parce que ñun député yi dañu war a joxe exemple euh, mais comme ni ko loi di wax. Euh, tant que tu n'es pas condamné tu es encore innocent donc am nañu présomption d'innocence di ñaax rek ñëpp ñoo xam ne laale nañ ci mbir mi euh, parce que nous sommes dans un état de droit ñu mettre toutes les conditions nécessaires pour que ñu mën a dem devant un juge pour se défendre parce qu'il y aussi de leur de l'honneur de leur famille aussi mais l'honneur de la République parce assemblée nationale mooy deuxième institution bu Sénégal donc lu mel nii di ko di ko laalee dafay laalaale institution yëpp mais aussi dafay wéy di dem bitim réew parce que passeport yoo xam ne moom la euh, dañu incriminé ay passeport officiel lañu mooy passeport yoo xam ne ñu ñu a passeport yooyu la ñu donc loolu bu amee lu ci laal rek je pense laaj na vraiment bépp gëstu boo xam ne war nañ ko def ñu def ko si mais aussi bañ a tout de suite incriminer nit ñi di bàyyi parce te xam naa ne gën naa doon posté non man man mi nekkoon si si cas boobu mais je pense que am assemblée nationale dañ nekk d' abord si vacances parlementaires donc yàlla def nañu 14 bii di ñëw Euh, assemblée nationale dina réunion pour la session unique donc 14 octobre donc am naa yaakaar ni que d'ici là président bi wax na ci biir réunion bureau bi que jotagul lettre ministre de la ministre de balaa muy am ay éléments il faut ñu ubbi enquête préliminaire bi bu defee bu amee ay éléments yi doy ci lay sukkandiku pour yónnee lettre au niveau de l'Assemblée nationale pour que ñu mën a déclencher le processus de levée mais loolu terewul déjà enquête bi commencé parce que na ay ñetti yoon gendarmerie te boobu maa ngi yoroon sama immunité donc enquête bi enquête préliminaire bi je pense que loolu loolu terewul ko mu euh, levée immunité parlementaire bi c'est la deuxième étape n'est pas la première donc ñuy euh, am yaakaar ni que vraiment tous les moyens de droit seront utilisés pour que ñu tirer au clair cette affaire boo xam ne c'est regrettable pour que ñoo xam ne dañu ci tudd ñu mën a seetal mais aussi mën a seetal deeru assemblée nationale. waaw président laal bi daf ma yebaloon di nga xam ne suma xarit euh, mu yebal ma pour ma ko fii ci final bi nga xam ni moom lañ ko tuddee euh, bi ma dafa ne woon naa wax équipe yi nañ ko joué ci fair play nañ ko joué ci bonne organisation nga xam ne Sénégal ñaari équipe sénégalais ñooy joué euh, ki ki ci man sa morom sa duma tey wax dëgg yàlla ki man mooy Casa Sport même bu fekkee ni jàmbaar gis nañ ni def na fond de jeu bu nga xam ne am nañ yaakaar ci ñoom ci équipe chaque coupe d'Afrique bi ñu nekk dañ ko mën a sori Euh, tey victoire football sénégalais la ma félicité fédération sénégalaise de football félicité amateur football yi félicité euh, de Thiès comme le département de Thiès effort yi ñu def ba aujourd'hui on a une belle finale qui qui montre aujourd'hui que le football sénégalais se porte